أبي العباس مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني الشريف الفاطمي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين mbokki jullit yi fi daje mbokk mbokk gi ak mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara kenn ku nekk ci turam ak santam xam naa du ñu mën a tudd ñëpp waaye ñi fi nekk ñëpp xam naa leen ñi cëpp nag ñi cëpp bokk pour bañ a wax lu amut waaye ñi ci ëpp yëpp soppe yi bu ma xesee tudd rek e, day dugg ci cadre lim te ku lim doo matal waaye ñu jiital ci nuyoo bi ki fi dajale ñépp woo ñépp ñu teew fi mu di cheikh al sayid cheikh maam Ousmane Diop muy nit ku baax yàlla xam na ko li ma metti rek mooy li am nii mooy wax dem te wax naa ko toujours man bëgguma ñëw ci jotaay rek wax dem day bari lu muy niru te su ma sañoon maag moom ñoo fiy toog ba jeex waaye moom xam na ndax sama digganteeg moom ifaadatika min ka ilayka la sotti ci ak def ci la loolu mu ngi bëgg a yàgg ndax soxnaam si di xaaja màgget kan di doomu alxaaji kan doon sama wëllëre doon nit ku baax ku yàlla baaxaloon fii ma jëm nii ci Thierno Bachirou war ko defal conférence fii ci géejawaay ci wetu jumaa Serigne Mansour bi ci golf looloo tax may dem kër Thierno Papa falaa jëm nii waaye bu dutoon loolu fii lay toog ba mu jeex alaaji Souleymane kan boobu nag moo tax ma xam sëriñ Maam Ousmane mi ndax njobootam alaaji suleymaan doon kenn ci man yàlla boole woon ñu ba léegi sax mu boole ñu ndax dee du tàqale kenn ak kenn kon nag sëñ Ousmane dañ lay ñaanal yàlla sa initiative rafet na sa yéene rëy na waaye ni nga àndee ak nit ñi rafet na kiy jàngal Alxuraan léegi ndekete kii toog mooy wuy juram sàmb jërëjëf ku am doom jàngal ko alquran ba mel nii wàcc nga rawati ci riwaaye bi mu jàngee muy riwaayatul warsh riwaaye warsh riwaaye bu jafe la fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin mu roy ci nag sama soppe sama kilifa sama xarit di cheikh mahmoud khalil al xosari nga xam ne moom ba dina tukki kenn du ko dab ci alquran loolu la yàlla dogal motax tax ma am fier ma fier am fierté ci dom ji mako tuddé tuddee waaw sama dom yeb bax nañ ndax kilifa yi fi ne yeb tuddé na len dom waye alquran motax ma tuddé Cheikh Mahmoud Khalil al Xasari doom fa tabarakallah motax bim jangé bim yëkëté rek man sama kàddu doyon na fofu sëkk di nuyu njabootu Maam Alaaji iliman saxo bi fi nek fa tabarakallah jaare ko ci sen wayjur bàyyi Tamsir Sakho nga xam ne lu ne def na ko ci Sénégal jaare ko ci magam ju baax ja Alaaji Ibrahima Sakho radiallahu taala anhu ridwanul alim ajmain di nuyu tamit sama mbokkum géejawaay bi Cheikh Ndari ñu ngi koy nuyu bu baax di kenn ci njobootu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass baay di nuyu maître Thiam kon daal sëñ Ousmane kàddu yi mu gudd mu gàtt maître Fall ñu ngi lay nuyu bu baax nga xam ne benn parrain nga am mooy moom loolu it muy jëf boo xam ne jëf bu sax dàkk la kon nag yàlla nañu yàlla taxaw sëñ Ousmane jërëjëf sëñ Ousmane jërëjëf Cheikh Ousmane jërëjëf li may jeexale sama kàddu mooy ñun ñépp ki jàngal xoraan wan nañu yoon amana rasul bi ma unzila ilayhi rab bi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 kon aaya bi valeur la pour ñu jàng ko fii mooy senegal daal nañ ñu ànd ñun ñépp nekk benn foofu lay jeexale kàddu yi gis nga unanimité yàlla mi bind jaam ñi sax amu ko waaye yàlla ñàkkam ko nag ci coobareem la moom suñu borom subhanahu wa ndax walaw shaa allahu la hadakum ajmain yàlla ne su ma neexoon yéen ñépp ngeen gëm waaye ci coobareem lañu bàyyi kenn ku nekk gëm lala neex ba ëllëg mu àtte waa ndem yàlla moo am démocratie boo xam ne bu ko neexoon mu poñe ñépp ñu gëm ko par la force ndax am na force bi moom yàlla ndax wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi moo am puissance not not ñépp te kenn notu ko la preuve lu ci waay bari bari doole bu sibiru ganisee rek nga xam ni yàlla am na walla kon nag bu neexoon yàlla ñépp gëm waaye kenn ku ne bàyyi na la ak sa bopp ak sa conscience ba ëllëg mu àtte te buy àtte ci màndu lay àtte du tooñ su ko defee nag kon ñu ànd farata la nañ ànd nekk benn xaadir murit tiijaan laayeen عباد rahman فلاح شيع ak mbooleem ñi nga xam ne taxawal diine tey waxal diine ñun ñëpp benn yàlla lañ am moy azza wa jalla benn yonent lañu am muy sayyidul wujudi sallallahu alayhi wasallam benn qibla lañu am muy al mukarram kon nak ana lan mo fi jar kenn ku ne di demal boppam kañ kon li ma doon wax am na ñi si Seydina Isa laay ñoom la yebal Seydina Isa di sama xarit di sama soppe ñu ngi koy sant di ko gërëm mook Seydina ma njon sama xarit lañ surtout ma njon ñooy nekk toujours Belgique mag moom ca kër Ousmane Ndiaye moo leen fa représenté xew-xew ya fay am yépp maag moom ñoo bokk gis nga lima doon wax yegg na ñu Sénégal ñun ñëpp bokk ndee ak baay sëñ ma njoon sama wëllëre la Cheikh ablay sëñ ablay Thiaw lay, yal na yàlla dolli leeram bi muy nekk Bargny 1991 gamu bu def Bargny fekkee naa kiko jangal alif ba muy Cerno Yaxya Li moko tut jangal alif ba ba sa bisma rabbikal a'la man na def waxtaan ci Seydina Isa Cerno Yaxya li moo ma ko nettali moo ne ma baaba maa ko nettali maa ko jàngal dalal ko alif ba ba yegg sa bisma rabbikal ala cheikh al islam alaaj Ibrahima Niass bàyyi fekk ma fa jëlee ma fa nag yóbbu ma la mu ne boobu mayor daara ji doon ko jàngale boobu turandoo sëñ na Ablaay sëñ Cawlaay mi mu ne boobu baayam way juram di Seydina Isa mu mag ma mook Cerno Yaxya li ñoo bokkoon nekk foofu Thierno moo yoroon daara ja mën naa def conférence ci moom kon nag sëñ Ousmane bu jëlee lii ne moom la ko fàttali ko ak man mii di wax muy ñun ñaar kon man mën naa wax ci moom moom mën naa wax ci man loolu la yàlla dogal kon man sama wax yëpp tey li ma doon wax yëpp bàyyee naa leen ko ngeen waxaaleel ma sama wàll ndax maa ngay jëm ci Thierno Bachirou waye dal ma ngi len di seedeloo ne wax deug yàlla sayna Isa turondom kuma xam la ndax kiko xam momako wax muy Cerno yahya Li waxna la legi mo yoron dara je di jàngale nee bobu sayna Isa wax deug yàlla keur ga reyna lépp nga fa ñépp nga fa mune fa la ko cheikh al islam alaji ibrahim Ñas bàyyi fek ci histoire yu gudd nag kon daal li ma doon wax mooy fii Sénégal ñun ñëpp bokk gis nga nii ma mën nii ma waxee ci Seydina Isa noonu laa mën a waxee ci Serigne Touba noonu laa mën a waxee ci Seydi Hadji Malick noonu laa mën a waxee ci ñëpp man mi taxaw ne ñëpp nañ nekk benn sama taaw sëñ Touba laa ko tudde te man Tidiane la bokk ci kër Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi waaye sama taaw Serigne Touba laa ko tuddee biir Tiwaawan Imaam Lamine Diouf moo ko tudd Kita apa cuma moom mu ngay sëy Tiwaawan boobu maa ngi kon lan moo fi jar tiijaan murit laayeen xaadir ñuy tojantey bopp lu ko fi jar dara jaru nañ ànd ligai benn liggéey suñu réew réew kenn mënu ko liggéey ci ak dañuy sonal suñ bopp la ko sa gànnaar mbàkke waxoon laay wax ca sama gamoga yal na yàlla yërëm te jéggal sëñ Koso Gànnaar ku baax la woon bu ñëwaan ci gàmmo gi sëñ Ousmane Lo bii xam na ko su ñëwaan ci gàmmoo gi bu ma ko joxee kàddu danaan sala asalaamaaleykum Chérif ñu ngi nuyu ñëpp man daal sama wax benn la ñii tiijaan tiijaan rek ba bés penc ñii murit murit rek ba bés penc ñii xaadir xaadir rek ba bés penc ñii laayeen laayeen rek ba bés penc ñi indi coow li mooy ñi mujj ñëw te amuñ fuñ installé salaamaaleykum wa rahmatullah lii la mos di wax pendant dix ans ba ni mu génne àddina benn discours bii lay tenir te loolu mooy dëgg su ko defee nag ñu ànd nekk benn du tere ku nekk fonk kilifaam koo fonk kilifaam mu fonk la koo doyedal kilifaam ak noo mën a toll mu bala sëñ Abdou Aziz Dabakh moo ñu daan wax ne doom nit kenn du ko soofantal yii yëpp ñu ne ko ban ak ban mu ne nit kenn du ko soofan kenn du ko tuutalal sëriñam nit kenn du ko doyadalal jàngoroom maanaam dafa ne nit kenn du ko xeebal sëriñam nit kenn du ko xeebal jàngoroom nit kenn du ko xeebal soxlaam nit kenn du ko xeebal bésam nee yii dafa rëy ci nit koo xeebal bésam mu bala koo xeebal jàngoroom mu bala koo xeebal soxlaam mu bala koo xeebal sëriñam mu bala kon nañu ànd nekk benn mbokk yi daal lii moo doon sama kàddu mu gudd mu gàtt Cheikh Ousmane ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yal na yàlla may la wa ayyadnaahu bi ruuxil qudusi li Cheikh El Hadj Abdoul Aziz waxoon Thierno Mountaga Ahmad fii ci zawiya bi maa ngi toog woote bu mu woote woon muy ñaanal Thierno Mountaga ne ko la yàlla waxoon ne wa ayyadnaahu bi ruuxil qudusi yal na la ko yàlla defal waaye yow it Cheikh Ousmane yal na la ko yàlla defal may la shifaan tàmma wala naa tàmma laa yugaadiru saqaman wala alaman wala asaran wala wajaan wa umran tawilan yal na yàlla dolli réew jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi am na ko ba noppi waaye yal na fi sax dàkk yàlla bu ko dara yàq lu ko nar a yàq yal yàlla jël loolu seppi ko sànni ko ci géej goo xam ne kenn du fa بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كادي رافل ما شاء الله يالنا يالنا فايلي يالنا يالنا فايلي دونك ني كونتيني سيريموني بي بو باي شريف نيو با بار دنج جوخ ليغا خامتاني ني موي ترانغا مين علي نينغ لاي وو nga ñew joxoon ñu shérif mi euh, li di kadoom Chérif yaa na nu yàlla fayal li nga wax fii yëpp wax ju rafet la wax ju déggu la wax joo xamante ne la aussi denkaane la ndax booloo jàppante def naa ni ñun ñëpp moom lañu war a def donc Chérif jërëjëf